mbokk auditeur rajo Oxygène ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam bàkk ba jib na ñu dellu si waat ak seen émission diisoo ngir aaru tey jii nag yemoo ko fukki fan ak juróom ñett ci weeru avril atum 2022 ñuy eh, amal nag ñaar fukkeel ak juróom benn lu épisode bi tey jii nag ñu nam waxtaanee donc lépp loo xamante ne rek eh, bokk na ci eh, kër lëmb boo xamante ne daal ñoom ñëpp jaaxle ci covid bi li ko indi mooy ñenn ci ñoom daal di lank ne duñu jël donc seeni matukaay ñeneen ñi des sax fas yéene donc jël li nga xamante ne moom la ñu yaakaar ne donte du dëgg donte lu ñu wóorul la ne bu buñ ko defee rek ci ay ngëneel mun na leen aar ci feebar bi donc loolu la ñu bëgg waxtaanee tey jii di fàttali rek ne émission bi dafa bokk ci émission bi lëkkale projet Africa Check ànd ci ak Théâtre for a Change lépp ci jàppandal Google News initiative muy amee ci rajo Oxygène altine bu jot ci juróom-benn waxtu ci ngoon jotee jàpp juróom-ñaari waxtu ci ngoon dimanche bu nekk fukki waxtu ak benn jàpp fukki waxtu ak ñaar comme niñ ko def rek saa su nekk donc dañuy am suñu invité invité tey bi nekk professeur Mouhamadou El Hadi Ba ñu gën ko xam ci turu Hadi Ba mu nekk philosophe nekk jàngalekat ca faculté des sciences et technologies bu éducation et formation ñu gën ko xam ci turu FASTEF mu nekk ex école normale supérieure ñu may xamal na sax na professeur Ba mi ngi ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam Fodou. professeur Hady maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi lay remercier ci li ma invité maa ngi nuyoo aussi auditeur ñu lay jaajëfal bu baax a baax yow moom xam naa duma la laaj ndax séeréer nga dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti ndax xam naa ne gisuma la <laughs> waaye ñaari nit ngay gis. <laughs> kon ba ci kanam professeur mais allah kon ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la jox dig daje ci kanam tuuti di fàttali rek ne question semaine bi mooy ak ana naka ngay def saay wul sa benn jege ñaale buñ ko testé positif ci covid 19 ana ban taxawaay nga ci am di fàttali rek nag ne émission bi euh, liñ ci am rek mooy Modou ki nga xamante ne gëmul feebar bi euh, di euh, coronavirus ba tax mu bañ a ñàkku ñàkk ñàkk boobu muy firndeel ne gëmul feebar bi saa su nekk nag muy indi coow jëm ci kër gi mu lank ne gëmul feebar bi moo ko teree ñàkku tax sax ba demul tukki ci tukki bi waaye loolu tam mu di ko wëyal daal di indi ay information yoo xamante ne daal saa su nekk dafay indi guuta donc ci kër gi kon wax naa leen ko sànq épisode 26 dañu toll tey ñëpp jaaxle nag ci kaaw Cheikh ngir ñu gën a am yenn information dañuy rek suivre épisode bi nekk donc épisode 26 waaye di fàttali ne am ngeen possibilité daal di envoyé message euh, ci numéro bii di 77 424 94 73 su ko defee rek ngeen bàyyi message ndaw Africa Check ki daal di leen o ngeen daal di participer ci émission bi jërë ngeen jëf salaam. docteur. Baye Ndiaye. waaw moom la. nanga mu. sant alhamdulilah yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi si jàmm. waaw Baye Ndiaye yow tamit nan nga mën a ñëwee ci hôpital bi te takkoo masque. wallaay jaaxle rek malaat bi la ma la andiloon ma doom. sa doom la. waaw moo la ma taaw. ngeen ko ba mu nekk ci situation yi wallaay xam naa rek jaaxle rek. léegi dangay ngay jënd ticket après ma consulter ko. hee gisal. kalpe baa nga ma fàtte sa kaw lal ba de. ticket ñaata la sax. 2000 la. Fanta Fanta. naam Kaay. naam Ndiaye. Kaay gaaw. lu xew Ndiaye. waaye docteur bi nee na ma jënd ticket te man kalfe baa nga ma bàyyi sa lal ba yoroo 2000. waaw dawal nga jëli ji ko te ñëw. ah waaw kon baax na. Baye Ndiaye amul problème léegi le temps nga dem di jëli loolu. waaw mën naa koo consulter. waaw waaw baax na. xaaral ma dugal ko ci salle bi. Ndiaye gaawal gaawal Ndiaye. ba bari Baye Ndiaye Baye Ndiaye yee. Eh. Ndoye. ah Baye Ndiaye de foo jógee de. Ndoye man hôpital la ma jógee. hey eh, hôpital lu fa xew ba la. Cheikh la ma yóbbu woon ma doom. Cheikh Bar dafa feebar. Cheikh dafa feebar. man xaaral ma yóbbu ko waaye gis na bi maa dem àndu ma xam sago ndekete dem na ma i fàtte moom kalbe sa kaw lal ba xanaa ba da ba jaay yow leen boo la yàq de sa xel xanaa ba loolu boo la yàq walaay jaaxle rek kat Cheikh ni mu mel baa a jaaxle feebar feebar bi sonal na ka la boo ko dal Cheikh daal yaram yi ànd naan pat pat pat pat pat pat pat xaw ma lan liw. ah liw na kañ. daa kon sibir bi la. ah ba dee ma xam ne sibiru ëppee na noo de. ala la saw yaram naan pat pat pat pat pat pat. ah dama doon wérante ak Moodu dama kaa yóbbu mu ne du ko yóbbu. abada ah, ba jaay xam nga bu fekkee ne moom yaram bi dafa doon lox doon boo xëyoon rek soob ko ci géej gi yàlla walaay walaay yàlla mënoon na ko defal wér. gis naa la aw dooy aw aw wax Moodu moom dama kaa yóbboo doo ko yóbbu aw ma ñëw man bi géej waaye léegi yéen da ngeen gaaw yóbbu hôpital trop yéen bu ñu waxee rek yóbbu hôpital xanaa bo ne hôpital da war a def dàkk da ngeen seet fa feebar yow xamante jarut muy dem hôpital xanaa bo ne boo ko di yóbbu ko ci gi nga jël xamu dim kii nga baaxal ko di ko ci kaas tuuti rek dogal na ba dëkk ndooy waaw ndooy xam naa docteur bi la la ma wax kii fan laa ko téyoon ba heure bi aw di ah. moo a kon kalfe bi ngeen jël si di ndooy sa laaj bi bare na trop ngir yàlla dama doon expliquer rek man maa ngee dem damay fàtte kalfe bàyyi ma ma dem bàyyi jaay nag man bu histoire ak man li la dakk teguma la ko yow yaa fàtte sa kalfe man fàttewu ma ko nag yaa fàtte sa kalfe wooyu ma nag dama laaj roog dama ne ndooy waaw maa ngee dem fexeel nag bal ma siwtaane waaw mais ma dama la xam nag bàyyi jaay yaa ngi may dama sa doon la laaj danaa jaar hôpital ba seet dinaa fa jaar ndooy wax ji doy na moo Modou. waaw papa papa lan moo xew Modou nekk fi. dama ne ani Modou la ma. bii maa de moo loo bàyyi si kër gi. waaw papa nag dalal lan moo xew ana Cheikh. Cheikh a nga hôpital. Cheikh sonna sonna sonna ba docteur bi wax ma ne ma kii fen ke fa mu nekkoon. fi de maa ngi war a jënd ticket xaalis bi ma jënd ticket moo nekk si calpe bi. waaw léegi am sa calpe papa. waaye moom calpe mu ngi si biir néeg bi. aw lan la sax. wa papa nag dalal yéen gis nga nag papa yii nii yëpp yéen ko indi seen bopp de gis nga man Cheikh damay bañ a waxi waaye Cheikh li ko dal yëpp man damay ragal mu nekk li ma ndax Cheikh day sëkkat Cheikh yaram bi tàng na ngeen bàyyi ko ci kër gi ba cas bi grave ngeen ñëw fii bëgg a indi ay complications. eh aw lan laa bëgg a wax ma ne. a ah, mais papa tamit boo xoolee ba ci biir dafa mel ne Cheikh dafa corona de. astafurla kuf ma la aw a ah, bon aw dinaa xuli kaa bokkal. mu di kat yéen a la bon waa papa nag yéen a ma lu bon mais li am rek laa wax de lan moo tax mu na dax corona waa papa yow Cheikh day sëkkat Cheikh yaram bi tàng na Cheikh sii ñi ñu wax ci coronavirus yëpp moo ci moom eh dama ne dimbali ma gis naa Cheikh ba aw doo si mucc gis naa xamal ma la bëgg a xamal yéen a nit moo gën wu di kaw yéen la bon yéen a ma ko lu bon de li am laa wax dama ne la papa yéen daal yéen a ngi noonu gis nga instant bi cas bi grave na grave boo xam ne kenn xamul fan la tool yéen lii yëpp yéen ko indi Cheikh dafa yàgg feebar ngeen bàyyi ko kër gi rek muy sëkkam ñun instant bi sax ñun dañoo nekk ci ay risque dama ne doy na la ma wax aw billahi aw Amadou yéen a yem dama ne dugal si biiru seetal ma moom kalpe la ma wax waa Baye waaw dégg yaay Baye Ndiaye nag ñëw bay dox ci naaj bu tàng xanaa gisoo ni ngay ñàkk yu nag dangaa ñeme rek dox naaj. wallaay jaaxle rek. waa foo jëm nii sax. man daal hôpital la ma jëm. Cheikh moo feebar. hee Cheikh men. Cheikh wallaay. waa Cheikh moom lan moo ko daal. Cheikh daal fan yii yëpp ndax feebar. bii sa jugu mu sonal ko lool ma ne ba ma xëy daal foog ma yóbbu ko hôpital. booy Cheikh nag moom dafa yàgg bon mais yow ba nga demee médecin bi lan la leen wax médecin bi daal dañu yëgse rek mu ne kii daal du ko téye dakaa dugal jëndal ticket ma laam ba may poos gisuma dara ndekete kalpe bi ma yoroon koppar bi maa jëndee ticket mu nga sa moo taxoon ma dem kër ga nii di ko jëli ji. xam nga lan laa leen di conseillé Baye Ndiaye mooy boo leen demee ci médecin bi. première chose bu muy def mooy na ko defal test Covid 19 ndax parfois dañu yóbbu benn patient yóbbu ko hôpital. waaw ñu téye ko foofu di ko sampal ay butéel di wax fii la xar yi jaar fii la bëy yi jaar te alors que ne kooku dafa coronavirus moo tax boo leen demee première chose bi docteur bi war a njëkk a def mooy defal ko test te yéen tamit li ma leen di conseil mooy bu leen approché wu Cheikh ndax kenn xamul lan moo ko dal leen masque. waaye nag bii yaayam fànte dee fa nekk ndax dina am xel moo wax ko docteur bi pour mu defal ko loo. ah nañu am njort bu rafet donc peut-être médecin bi moom suñ demee xam na lu mu war a def Cheikh feebaram bi dafa yàgg de. yàgg na lool moom feebaram bi dafa yàgg te Cheikh day sëkkat yaram bi day tàng gis nga loolu rek moo taxoon papa ma yàgg ñëw naan kër ga di leen sensibiliser naan leen Cheikh. personne vulnérable na da dem jëlee vaccin bi mais saa bu ma waxee moodu ak ay waxam danaan ma yow dangaa bëri wax ak dem ba interdit ma ci kër gi te yéen sama ay dëkkandoo yu yàgg ngeen wallahi saxati seex soo la wax noo waaw nun ñi dëkk moom noo ci gën a sonna ba guddee du nelaw koxo koxo koxo laa fi naanoo ba bët set mais nag nañu am njort bu rafet rek peut-être beneen feebar moo ko dal mais ah. daal lu ci mënti am daal ah. nañu moytu surtout yéen ñi nekk ak moom hôpital. wallaahi dee leen takk masque ngeen moytu. gis nga feebar bi Baye Ndiaye. Ah. mais nit yi ñoo ko gëmul. surtout genre moodu yi. man dem na ba benn instant moodu su ma ko rombee ci koñ bi di ko nuyu daf may fayee ba xel. wallaahi li wax te ku ne xam ne sama digganteeg ah. moodu. mais dem ba bëgg noonu ak man ndax coronavirus bi ndax ndax na sensibilisation yi may def waruma ko def est-ce que loolu yoon na. wallaahi du yoon waaye lii wax nii. yàlla ba mu dal seex de. ndax seex sonn na de nii ah, wax dëgg yàlla de bi ma faa jogee docteur bi dana kii fanu nekkoon ak moom ban téye ko si kër gi ba ah, heure bi nañu am njort bu rafet rek ah yàlla baax na xam naa ne comme da nga bàyyi malade ma bañ laa téye ci yoon bi dama lay conseillé daal nga daw gaaw dem xoole ko wallahi aw daxaa la mag nit gis na baa jaaxle ñëw dëkkal sax daañaa fàtte mais yóbbu seex hôpital aw bi ak waroon a yóbbu ndax guddee bëccëg a ngi noo wax di ñu xelal la nekk aw di kay billaahi aw yàlla laa fay papa baa yor nga li nga jëndee ticket rek. ah wallaay am na la ma yoroon de mu ngi si calpe bi. xaara xaara xaar. waa déet déet. déedéet jaraawul yow tam papa. Eh, ah, ay waay man ci kër gi laa bokk nag. am lii ne mën nga kaa téye. awa lii bare na kat. ah yaa moom nag papa. aw daal yal na la yàlla fay. jërëjëf waay. aywa lii teguma la ko woon de. billaahi sonn naa si booba léegi a ngi sensibiliser ndax lii kat wax dëgg yàlla teguma la ko woon. waaye nag yal na la yàlla fay xaw ma sax ndax ma xool daf sedd guy si aw yal na la yàlla fay jërëjëf jërëjëf doom yaay yaay naam yaay ana Cheikh Cheikh mu ngi ci biir. waaye yaay lan moo dal Cheikh. ah ndox dëgg yàlla docteur bi daal la mu duggee ba tey moo Cheikh génnaatul sa papa dafa demoon kër ga moom laay xaar ni mu ñëw. yaay Cheikh lan moo ko war a jot. ah docteur boo waxu leen dara ba tey. du li ma la mën a wax ba mën la ko wax daal mooy docteur bi daal mu duggee ba tey génn man daal xaw lu jot seex jaaxal na ma lool. yaay Cheikh tiit naa ci moom de lan moo ko jot yaay. ah nañu defar njort rek yàlla baax na ba docteur bi génn incha allah. waaw papa. Modou ki aw la. ah man la kay. du a ñàkk a jóg Modou aw kon dinaa ñëw hôpital. nijaay fi mu nekk nii ay xuloo moom nañ ko teg fële ñu jéem a xool nan la ñuy def ba gis médecin bi xool lan moo jot seex. Soxna Fatou te yow sax da yàgg na. kër Soxna Fatou bi génneegul. ba tey génneegul. papa nag wax dëgg yàlla instant ni moom docteur bi war naa génn ñu xam lan moo jot seex. ah waaw. aw day aw man dama rus sax. papa man xuloo ma de papa man seex seet si moo tax ma ñëw fi Baye Ndiaye. docteur ana seer. tey leen rek dal leen. Euh, def leen docteur ana def leen daal Fanta dalal. docteur lan euh, dama leen bëgg a wax euh, benn affaire. Cheikh gis ngeen bi mu fiy ñëw kaam dafa critique bi mu ñëwee léegi defal nañ ko test coronavirus. mais bi test bi génnee dañu gis que ni dafa positif. maanaam dafa am lii di coronavirus. Ah, moment bii nag vraiment mi ngi nekk ci ay situation yu grave parce que dañ ko mujj sax euh, yóbbu urgence pour mën ko téye foofu noonu. ay docteur docteur sama doom lan moo ko jot. ay docteur lii mbaa jàmm la ay docteur mën naa ko gis. dalal soxna si moment bi mënoo leen ko gis parce que moom laa lay wax léegi urgence la nekk. d'ailleurs sax. léegi lenn lañ bëggoon mooy comme famille bam bi dañu ko doon euh, jege boobu ba tey dañu leen di jël yéen ñëpp ñu defal leen lii di test coronavirus pour tamit ñu jéem a xool ñum nga xam ni ñoom la doon jege ñaaleel depuis boobu ba tey. soxna Fanta. lee taxoon bëgguma u ñëw hôpital. teeyal u déglu docteur bi lii moo wax. waaw papa tey amu si nag yaay mënumaa tey sama doom mën naa nekk situation bi ma koy boole ak soxna si lii nag moom mooy safara su jur jàngoro nag soxna si da ngeen di dalal seen xel rek après ngeen patienté fee euh, Baye Ndiaye yow tamit comme yaay kilifa kër gi il faut nga regrouper famille bi pour ñu mun leen defal test yi lu mu gën a gaawee moo gën pour ñu mën a identifier ñi nga xam ne am nañ coronavirus wala amuñu coronavirus. ay Maodo fii kenn def fi test. déggal déggal déggal test déggal fii ma taxaw fii du aw aa fi waroon a taxaw ubbay sa waar papa xam nga lan la gis nga man li may ci seen feebaru caaxaan baa ngi nii yow nan lay seex di nekkee feebar ba sonn ñuy bëgg tee dugal daan ay ay affaire Modou Modou Modou là je t'arrête hôpital nga nekk tu n'es pas chez toi d'accord après ñu xool nu ñuy régler situation bi Baye Ndiaye dama bëgg nga indi famille bi léegi ñu defal leen test le plus rapidement possible jaajëfal bu baax a baax suñu comédiens yi ku ci mel ni Cheikh Ndiaye Khady Fall Diaw Mame Mbodj Gaye Seynabou Diop Yacine Diop naka noonu Mouhamadou Diol waaye itam ki nga xamante ne moo tax ba ñu mën a am lii lépp muy réalisateur bi di Fallou Sow naka noonu ki nga xam ne moo di Emmanuel Mbène ni ñu gën ko xam ci turu DJ Las xanaa rek di fàttali ne mun ngeen réagir ci question de la semaine bi ngir daal di mën a tontu ci réseaux sociaux yu Africa Check di fàttali rek ne laaj bi mooy ana nan nga war a taxawoo taxawee ki nga xamante ne daf la jege lool te ñu testé ko positif ci Covid 19 dañuy def rek comme ñu koy defee saa su nekk jéem xool ndax suñu auditeur bu njëkk mi ngi ci ligne bi mu mel ni Fallong may wax ne mi ngi ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum maa ngi lay nuyu sëñ bi naka nga tudd ak fan ngay wootee. ñu ngi lay fay bu baax baax. maa ngi lay fay. tur bi naka la. maa ngi tudd Baba. Baba Baba si la may jot de. waaw soxna si maa lay ziar bu baax. yàlla yàlla nangu ziar ndax yaa ngi doon suivre épisode 26 bi. waaw maa ngi ko doon suivre bu baax a baax kay. Ah, nan nga bëgg a taxawee da ngay euh, dugg wax ak comédiens yi wala dafa am euh, loo ba loo leen bëgg a waaw dama proposé nag wax tax wax ak auditeurs yi. comédiens yi wax ak comédiens yi en yi. waaw ci ban partie nga bëgg waxan waxee ak. Ah, euh, ci ci ci euh, ci ci moodu daal ci laa ci moom laa bëgg a wax waxal moom. Modou nga bëgg a jokkoo directement. waaw kon seen 5 bi lay doon ndax foofu la Modou daal di dugg see. waa ci ci ci fin bi ci dernière bi. mooy fi waxee dañuy testé gaa ñi nga xam ne ñun ñoo ànd ak malade bi. voilà xool ndax dara jot na leen waa wala déet. waaw kon principe bi mooy dañuy joué waat euh, épisode boobu comme ni niñ koy defee saa mm-hmm. su nekk waaye bu ñu fa yegg si danga naan stop su ko defee ñu daal di ah. noppi rek nga mun a jokkoo ak Modou directement ndax mën naa nekk. incha allah. acca baaba. Baye Ndiaye. ginnaaw ba euh, Cheikh defal nañ ko test coronavirus que gis nañ ni dafa positif. donc il faut que nga regrouper famille bi ñoom ñëpp ñu mën leen a defal ñoom aussi euh, test pour mën a xool ñi nga xam ne ñoo doon euh, dend ak moom depuis boobu ba tey. ban ban test kenn def fi test waaye li may waxati seen feebaru caaxaan baa ngi nii ngeen naan ay test ah kii mën na siburu ngeen fiy nekk naan ay waxu test ay corona ak affaire yooyu noonu. là Modou je t'arrête. voilà nee na stop. ñii nii da dugal sa malaat indi ko hôpital rek ñu ne la dafa Covid. di ñu bëgg a defloo ay test test yi waaye yéen seen feebar bu ñaax fayda bi ñu bëgg ñoo defloo ay test fii nii ah. waaw. moodu nag sa dëgër bopp gii nag xam nga man yàgg naa laa wax ne yow doo dégg te nag maa ngi koy doo gëm tey Modou àdduna amul solo yow kii sa frère la yéen a bokk ndoo mu yàgg tëdd feebar ci kër gi. waaw te yow dégg nga li ñuy wax ci feebaru Covid bi nga xam ne dañ daan dandante leen takk leen ay masque yéen précaution yéen waroon jël yi jëlu leen ci dara. bi ñu ko indee hôpital mu tëdd ñu leen xool leen seen yaram ndax Covid gu leen yéen dañ bëgg a aar. mais baaba yow wax nga ko say biiri wax Cheikh yàgg na tëdd feebar. ñun yàgg nañu ah. nekk ak moom. musuñu ah. am benn problème kon du ñu ñëw ba tey rek ñu bëgg koo jël rek féetale ko kii Covid bi. ba pare ñun ñu bëgg loo def ay test ba ngeen nekkee moom seen kër mu feebar déglu ma wax la ba ngeen nekkee moom seen kër mu feebar xamul leen ne Covid moo ko dal te sa bàyyi ko indi xamutoon ne lii ko dal. docteur yi bu leen waxee ne kaa xool leen te si xool ndax feebar bi mbaa ko te yéen bu ngeen ko amee mi ngeen ko wàll ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon seetu seen yaram da di aar ak gën ko aar ñi nga xam ne ñoom ngeen dëkkandoo nga xamul leen ndax laal ngeen keneen wala moom mu laal keneen te yéen yëgu leen ko te yéen ngeen dëkkandoo ak moom tamit. baaba ay gaa fay nekk di ko wax mais amul. Cheikh dafa siburu dong. Cheikh ku ne xam na ne xiiboon la yàggoon na feebar mais tey feebar bi ko dal nii nii siburu la parce que li muy loxo ko liw nii nii loolu siburu rek moo koy wane. Modou. waaw. loo gàtt dégg dégg. yëg nga ne signes yi nga xam ne moom nga tudd léegi yëg nga ne que docteur wax nañ ba tàyyi ci rajo yeeg ci télé yi ak ci publicité yi ne yii feebar yi wane ne Covid la même bu dee sa papa xelam daju ko sa yaay mi nga xam ne yow xale nga comme ñun ñoo bokk génération ngay fekkee lu am information yaa waroon womal kii ko comme que nag sa ba sa baay ak sa ci am sax nag ragal du la ci fekk. non man defuma ay test Covid ndax coronavirus amul siburu la rek comme siburu yëpp voilà. Modou. waaw. xam naa nag naqari ngaa waxal waaye nag yow da nekk jeune comme ñun. waaw yaakaar naa xeex bi 19. oote nit ñi def ay ay ay maanaam xool ndax am na jàng wala amuñ jàngoro ji takk masque ak raxasu beeg yooyu ak dandante bi yaakaar naa ci ndaw ñi waroon na taxaw tey pour xeex ko la wax ko population wax ko waa quartier bi fexe ba ñëpp jot ci mais nag yow gis naa ne neexoo waxal man nag su ma sañoon sa jikko ji nga làmb woon ne bañ rek boobu b léegi na doo nangu su ma sañoon nag nga nangu ndax. rëccu day fekk jëf yooyu te man bëgguma benn yoon ngay rëccu ndax yow sama nit la allo Baba. kon ñu lay ah. jaajëfal bu baax a baax ndax li nga bëggoon hmm. a wax Modou yëpp wax nga ko ko. li ma ko bëggoon a wax yëpp wax naa ko ko. muy lan ak lan ak lan. wax naa ko ne ko moom xam nga eh, Covid bi ndaw ñi ñoom ñoo gën a am chance di génn ak di dajeeg population bi. tout à su ma sañoon moom en tant que gën maanaam mu changé bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sensibiliser réew mi bañ a bokk ci ndaw ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ñoom ñooy gëmloo nit ñu ne feebar bi amul. mu mel ni ndaw nga wax nga ko sànq di nga tase ak ñu hmm. bëri ñu mel ni du ci mbedd mi lan mooy nekk sa hmm. taxawaay jëm ci ñoom. taxawaayu ndaw yi ci feebar bi. waaw moom mooy li nga xam ne peut-être que docteur wax nañ ko ci information noonu la ñuy noonu lañ ñuy moytoo feebar bi. taxawaayu ndaw ñi loolu la war a doon mooy li nga xam ne xam nga docteur yi mënuñoo dem kër gu nekk naan la defal nii wala defal na la ñun ndaw ñi nga xam ne ñu ci réseaux sociaux yi ñu ngi am information yi autant ñu ñoo war di sensibiliser suñu waa koñ sensibiliser ñu waa kër sensibiliser képp ku kuñ dëkkal képp kuñ gis ne yaa ngi wàcc nga saas yi nga xam ne bokk na ci les protéines ci Covid bi ñu ndaw ñu ñoo war a taxawoo taxaw boobu yëpp ñëpp am information yi ci li waree yaakaar naa loolu ndaw ñi loolu moo nekk seen position ci feebar bi. ñu lay jaajëfal bu baax Baba Sy nekk auditeur rajo Oxygène gannaaw participation boobu nga xam ne indi na ko. jëm ci donc épisode vingt six bi kon dañuy dem lu rek daal di jokkoo ak nga xam ne mooy suñu invité nekk professeur euh, Mouhamadou El Hady Ba ñu gën ko xam ci turu Hady Ba mu nekk philosophe nekk jàngalekat ci faculté des sciences et technologies bu éducation et de la formation ñu naan ko FASTEF mu nekk ex école normale supérieure allo professeur. allo Kodou ça waaw ça très bien merci. Euh, kon mu ni yaa ngi doon déglu épisode vingt six bi ana lan nga ci jëlee ah c'est intéressant parce que li li ma gis ci émission bi mooy li ngay gis boo nekkee ci dëkk bi rek ñu bëri dañuy naan euh, euh, covid amul wante boo seetee souvent boo leen ne kay wu ñu ne la déet dañuy ragal testé wu en fait bu question gëmuñu ko mais dañu ragal xam tout à xam fi ñu féete. parce que puisque maladie bi lu bees la daf leen jaaxal euh, dañuy ragal quoi bëgguñu xam sax ndax am nañ ko wala amuñu mu nekk lu am solo professeur dinañ gën a xuusaat euh, ci boobu les points mu mel ni euh, yow professeur nga nekk enseignant fële ca université waaye mu mel ni tam bokk nga ci ay jàngat yu bari yoo xamante ne jot nañ ko def ci réew mi ak ci bitim réew lu ci mel ni ay étude internationale jëm ci feebar bi boo ñu doon jox sa taxawaay jëm ci loolu lan lay doon. ah sama sama taxawaay en fait bi ma nekkee bi bi commencé ak ay chercheurs yu bëri yu nekk euh, États-Unis yu nekk France yu nekk ci pays yu bëri dañ ci def ay recherche te li ñu gis mooy euh, message bi ni koy envoyé ni ñuy waxtaanee ak population yi lu am solo la ngir ñu nangu wala bañ a nangu mesure yi leen di aar. léegi bu fekkee biñ leen di jox message dañ leen wax ni li ñuy def yëpp du pour aar seen bopp rekk wante pour aar seen morom yi aar dëkk bi wan itam ni dëkk bu nekk mën na gérer feebar bi ci boppam wala mu bañ ko gérer ci ni ci ni population bi jàppee affaire yi loolu day tax nit ñi gën ci farlu wante buñ toogee di mënul ci dara wala waa bitim réew ñoo xam wala affaire yu mel noonu rek nit ñi dañuy ragal duñ nangu message yi sax li ngeen di wax looloo gën a constant ci li ñu gis ci mu mel ni li nga wax lu leer naññ la mu mel ni transition bi sax danga ko indiwaale muy nga mettre l'accent ci ñaari point benn bi muy message yi ni ñuy waxee ak askan wi beneen bi nekk li nga xamante ni moo di gestion feebar bi déjà ci sa perception ndax nga gisee message yi ni ñu ko doon joxee askan wi mu tàmbalee ci ay message euh, ci ay communiqué ngir wax ñu situation Covid bi ci réew mi. Sénégal ci pays yi ko gën a gérer mën nga wax juin juillet yooyu première année bi yëpp Sénégal ci pays yi ko gën a gérer ci monde bi la bokkoon. Euh, bi vaccin yi ñëwee ci lañu bàyyeeku wante euh, boo seetee ñi ko gérer ay médecins sénégalais lañu ay journalistes sénégalais ay théâtre kat sénégalais ay tailleurs sénégalais. donc pour man Covid bi lim ñu woon mooy dëkk bi bu ñu farloo amul dara luñ mënul def parce que niñ ko géré ñun moo gënoon ni ko États-Unis géré moo gënoon ni ko France géré donc souvent ñun dañuy ut ay solution feneen fekk suñu wóolu woon suñu population yi rek dinañ mën régler suñuy problème yu bëri mu mel ni professeur expertise locale bi am na lu mu wone naam dem dikk amul woon waaye jéem nañu wéeru ci suñu expertise locale ci domaine bu mu mënti nekk ngir mën a indi saafara war a gën a janoo ak ni mu waree ak feebar bi. waaw te te te je pense que aussi dara lu ñuy xeeb mooy yéen li ngeen di def nii boo seetee théâtre bi ngeen def nii. Euh, d'ailleurs je félicite kii kii joué Modou foog naa sama mbokku la. parce que Tëngéej laa màggee. mais boo seetee théâtre yi ngeen di def day wax directement ak population bi wax directement problème yi pro proposer leen ay solution boo seetee journalistes yi par exemple pendant presque un an chaque jour dañ doon wax affaire Covid di expliquer lépp lu xam-xam bu bees yëpp mu ñu andi ko. loolu moo tax Sénégal géré woon Covid bi bu baax. mu nekk lu am solo loolu teg foofu sa baaraam parce que am na beneen auditeur bu dugg da ngay déglu ak ñun li auditeur boobu di indi su ko defee rek ñu dellu si yow ndax naa nekk. incha voilà asalaamaaleykum. maaleykum si maa ngi lay nuyu. tur bi naka la ak fan ngay wootee. Aïssatou Diop maa ngi wootee Géejawaay. ah Aïssatou bu Géejawaay maa ngi lay ziaraat bu baax. maa ngi delloo ziar bu baax kay. bu mel ni yaa ngi doon déglu épisode vingt six bu diisoo ngir aaru. waa maa ngi doon déglu waa diisoo ngir aaru. ana lan nga jàpp ci épisode vingt six nga jàpp ci épisode tey bi. d'accord man xam naa ci scène 2 bi lay ñëw. da nga bëgg ñu jouer la scène 2 bi. waaw. waaw seen de boobu nag bu ñu la koy joué comme niñ ko xamee rek. Euh, comédien mhm. yaa ngi nii ak man ci studio bi bu ñu joué ba yegg fa danga leen di wax rek ne stop su ko defee rek nga daal di jokkoo directement ak nga xam ne moom nga bëgg a waxal ndax mën naa nekk. waaw mën naa nekk kay maa ngi leen déglu. jërëjëf. waa bari Ba Ndiaye. Ba Ndiaye Ba Ndiaye yow foo jëm di yow jaxlaf nga de. waa Ndoye. hôpital la ma jógee jaaxle rek mën daal ma doom see moo feebar. ah ba see boobu lan lan boo ko jot waaye. see daal ba guddee du nelaw yaram wee la ànd naan pat pat pat pat te xaw ma lan la. waaye ba jaay yow tamit gaaw torop xanaa boo bu fekkee ne di dafa jékki-jékki di feebar di di liw di boo xanaa boo de lot sibru la te xanaa boo de boo ko sooboo ci géej gi yàlla xam wallaay léeg-léeg bu jóg. gis aw a wax Moodu yéene yam la ma doon xuloo moom ay ba ko yóbbu hôpital dama kaa yóbbu hôpital lan moo tax ba di ba di waay waay bàjjaa xam nga ni loolu sibru la rek booy bu nit buy kiiwee di di lox di di xam nga loolu sibru la te bu fekkee ne sibru boo ko jàpp nii gis ci géej gi nii di walaay day day jóg doxe ay solaam yoo xanaa xamoo loolu gisaa kii bi ba ko yóbbu hôpital bi dama doon laaj kii fan laa nekkoon ak moom ba heure bi waaw sibru bi rek boo ko soroon rek sibru doog boo ko soroon xanaa xamoo loolu walaay sibru doog boo ko soroon allo waay waa stop. Euh. xanaa koor gee la waa foofu laa bëggoon yem sax. waa kon. waaw Uh-huh. waaw man xam nga xam nga Baye Ndiaye doomam boobu doon Cheikh. waaw Baye Ndiaye waaw boobu boo sibiru bu koy gaaw te di ko yóbbu hôpital te xanaa xam nga léegi sibiru jarul yóbbu hôpital xam nga xam nga ñun ñun am secret. bu ko dugaloon uh-huh. wala yàlla xam ne day wér. loolu nga teg ko fan. Ah, am expérience de. ah, ah loolu doxul de. Ah, bari bari bari xanaa yow la ndooy waa ndooy ngeen yow eh, <laughs> ndooy ngeen mu jël ko def ko ci géej gi. waaw waaw xanaa xam ci boo sagoo ci géej boo siburoo boo sagoo ci géej gi. boo xëyee sang ci mm. géej gi. ah woo day day day day day day. ndooy man de ba mu tuddee sama ndey ba léegi maa ngi doog la wax lii. hee yet xam nga li ngay boor ndox mi moo tax. Mm-hmm. ay jur di dëkk ci boor ndox mi xam nañ de. ah euh, Ndoye man loolu d'accord ma ci ak yow de man ci boru ndox gi laa dëkkee. Ah. te miin na ndox gi te loolu duñ ko def bu ñu amee sibiru kay dañuy dem ci euh, waay kay docteur yi. ñu xool lan moo nu jot. ah waaye du wax ñu dañuy dugal ci biir géej gi loolu Ndoye amul de. ah. ah Ndoye déedéet loolu moom d'accord ma ci ak yow. ah jot de jot de loolu la ko doon defee. kon yow boo boo feebaree da ngay dem kër docteur. waaw bu ma feebaree kay moom su ma gisee sama yaram mu tàng. waaw ak loo xam ne bokku ci damay dem ñi nga xam ni seen xel dafa màcc ci loolu ñu xoolal ma lan moo ma dal. ah waaye nag loolu moo gën dem ci géej gi dafa dugg boo demee ci géej gi dugg fa nga defee ndax sa yaram dina dina sedd du sedd. ah ñu doon lañ doon def de. ndoy loolu moom moom moom du solution. ah wérul. ah wérul de te nga digal sa xarit bi moom loolu moom wérul. Ah, kon ba digal ko mu dem kër docteur kon kon loolu la kay da dem hôpital rek garaaw comme yóbbu na Cheikh hôpital ba pare xam naa après ah. kon rek ko wax lu ko jot kon waaw na yóbbu Cheikh hôpital ñu xool Cheikh lan moo ko dal ndax dafa dafa corona wala wala sibiru rek la moo gën ñu xam ah baada baada waaw baada jërëjëf kon jërëjëf ah, waaw loolu mooy dëgg jërëjëf Aïssatou waaw jërëjëf Kodou mu mel ni jokkoo nga ak nga xamante ne donc moo di Ndoye waxtaan ak moom ndax yaakaar nga ne message bi nga bëggoon jàllale jot naa jàll waa gëm naa ko parce que d'accord na sax ni dinañ ko yóbbu. kon fan nga jaar ndax loolu mooy dëgg. fan nga jaar ak moom ba ba ba mu mun a nangu ndax bàyyi li muy nangu bëriwul de. waaw dëgg la mais dindi xelam rek ni euh, du ku feebar rek dañ koy daal di yóbbu géej ndax man loolu maa ngi koy doog am dégg. tout à fait nit kay bu tawetee dañ koy yóbbu ci ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu ñooñu mën nañ ko seet ba xam lan moo ko dal. kon mu mel ni bari nañ ci réew mi ñu mel ni Ndoye yow mi nga xamante ne ci askan wi nga bokk nan nga mën a jokkoo ak ñoom ngir mën a soppi seen xalaat jëm ci lu ni mel. waaw juste rek di leen sensibiliser di wax ni nit euh, nit moom bu feebaree rek nañ ko yóbbu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy faj euh, fajkat yi ndax nit ku nekk rek lu ko dal am na saafara buñ ci mën a am. ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Euh, dégg teelu rek ni damm na parce que mi ngi wax ni ñoom loolu baaxoo di def. donte yi fu maam dëgg la waaye nag euh, ah. day des fois day baax ngay xoolee beneen côté bi di topp nit ñi nga xam ne loolu la ñuy def tout le temps bu ñu ko defee njëriñ rek lañu ciy gis rawatina wàllu wér-gu-yaram kenn amul fayam. mu nekk lu am solo waaye surtout maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa participation maa ngi leen di jaajëfal yéen itam. Euh, kon mu mel ni donc leer na nañ dañuy rek daal di delluwaat ak suñu professeur professeur Hady Ba nekk séeréer bu ñuul bi allo professeur. Codé ça très bien merci euh, professeur pour dellu waat ci suñu thème tey mu mel ni jot nga déglu ñaari auditeurs yi dugg mu di Baba Sy ak satu mu mel ni euh, tout le temps dafay am solo mm. ñu leen di delloowaat kàddu gi euh, mu mel ni professeur nga wax nga ko sànq jot nga def ay études yu bëri daal di participer ci ay jàngat ay recherche waaye ñu gis ne désinformation jëm ci Covid bi bëri na lool ginnaaw bi feebar bi duggee ci réew mi ak léegi. fépp la boo seetee États-Unis bi ma nekk euh, demoon nañ ba président bi ci boppam mu naan nit ñi nañ naan pot sagar ñi am ñu ko naan dem am ci ay maladies yu grave donc euh, désinformation yi moom malheureusement ci àdduna bi yëpp la quoi wante peut-être li ki ki wax li mu wax rek mooy dëgg quoi. nit loo jàngul doo ko mën ñun. ñi nga xam ne du ñu ay médecin mënuñu wax que ni ñoo gën a xam médecin yi. absolument donc dañuy woolu médecin yi rek li ñu suñuy médecin yi wax nga xam ne fii lañ jàngee fii lañu màggee te suñuy mbokk lañu ñooñu en fait lu baax rek la ñu bëggal donc ñooñu la ñu wax a déglu. léegi nag problème bi ñu am mooy Covid malaaj bu bees la tey médecin yi mën nañu wax li ñu dem ba mu yàgg ñu gis lu bees. ñu ne ah léegi nii lañ wax a def donc loolu bu amee aussi da ngay wóoru médecin ya nga xam ni dañu nekk def ay recherche di comprendre du comme maladie boo xam ni xamoon nañ ci yëpp nga xam ni duñ ci mës a juum tout à maladie bu bees bu amee yenn saa yi médecin yi dañuy wax dara ñu dem ba mu yàgg ñu gis ni en fait wax nañ ko changer ñu ne léegi nañu def lii mu mel ni loolu mel ni professeur li ngay wax noonu sax li koy firndeel mooy bi feebar bi di doog a génn dañu waxoon rek ne mag ñi nga xamante ne am troisième âge ñoo ñu lañu euh, permettre ñu jël vaccin waaye ñuy dem di dem ba ci euh, digg bi ñu ne ndaw ñi itam dañu war a jël seeni vaccin waaw boo seetee aussi maladie bi mu ñëwee li ñu doon jëkk wax mooy il faut ñu raxas loxo donc raxas loxo raxas loxo raxas loxo après ñu toog ba mu yàgg ñu comprendre masque yi en fait moo ci gën a important après ñu ne léegi na nit ñi di sol masque donc loolu day dañuy gën a comprendre rek plus ñuy recherche plus ñuy comprendre te bu ñu comprendre rek médecin yi dinañu wax incha allah li ñu war donc noonu le science bi demee mu nekk lu am solo professeur waaye ñu gis ne itam te yaakaar naa ne sax ci gëstu yi nga def am na foo ci dellusee muy lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram pour nit ñi jël ay euh, décision jëm ci seen wàllu wér-gi-yaram lu jafe la lu jafe la lu jafe la te boo deful ndànk rek euh, di leen euh, di nga tax ba duñ la wóolu donc boo deful ndànk rek ñi loo wax rek duñ ko def tout à fait boo boo seetloo affaire bu gën a important pour man ci gestion bu Sénégal bi mooy bi mu commencé président Macky Sall dafa ni damay déglu scientifique yi. xam nga bi mu waxee loolu rek mooy léegi politique génn na ci du moom mooy def wante ñi am xam-xam loolu bi mu ko defee dafa tax population bi gën a wóolu scientifique yi wante bu ne woon man maay def. wala Ablaye Diouf Sarr ministre man maay def loolu rek mënoon na tax population bi lépp lu leen wax duñ ko def. mu nekk lu am solo professeur loolu il ci attention attention professeur da ñuy mayaat tuuti rek mel ni am na beneen auditeur bu dugg ci ligne bi su ko defee bu ñu jokkoo woon ak moom rek daal di dellusiwaat ak yow. incha allah allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi lay nuyu. ah Kodou. waaw. Cheikh Moussa Fatma Ndiaye. sama waajaangoog dafa mel ni faaw nga wàññi sa rajo bi nag mën a jokkoo bu baax. waaw acca boog wàññi naa ko mu nekk auditeur bu fidèle boo xamante ne rek képp kuy déglu rajo Oxygène rek. da ngay sax dem ba fàtte ba daal di xàmmee donc euh, baat bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay lu bare waay Codé. Cheikh Massé mu mel ni yaa ngi suivre épisode vingt six bi. évidemment. waaw ana lan nga bëgg tey jokkoo directement wala dañ lay jouer sax euh, donc séquence bi nga xam ne foofu nga bëgg ah. duggee. bëggoon naa wax ak Modou ci hôpital bi mu ñëwee ba fekk si papam fekk si yaayam ci hôpital bi buñ koy proposé vaccin bi. kon dañuy joué scène bi wala lañ lay jox directement Modou nga jokkoo ak moom. nañ ma joué scène bi rek comme ça après ma dugg. wax ak ñoom ñëpp rek loolu neex loolu mooy mooy filimu épisode bi. <laughs> waaw gis nga. <laughs> waaw kon xam nga miin nga ko dañuy joué rek bu ñu fa yeggee bu nga nee stop su ko defee rek ah. Modou daal di jokkoo ak yow ngeen waxtaan. d'accord ndax mën naa nekk. mën naa nekk waaw. Baye Ndiaye. ginnaaw ba Cheikh wax naa la bi muy ñëw dafa sonn donc dañ ko defal test léegi test Covid 19 mais on a vu que dafa positif. il faut que nga regrouper famille bi yëpp ñoom tamit pour ñu mun leen a defal test ndax depuis boobu ba tey ñoom ñoo nekkoon di di dendandoo il faut ñu defaleen ñoom ñëpp test. ban test. test Covid 19. waaye fii kenn def fi test. stop moo tax ñuy def test. waaw nee na stop. waaw Cheikh Mousseye. waaw kay waaw naka soo waa ji maa ngi lay siyaar. waaw fii la waree sa waa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah waaye da indi sa malade hôpital rek après ñu la da ngay def test yooyu noonu. mais Modou li ko waral mooy dégg nga seex kaaw seex seex testé nañ ko kay dafa Covid. te yow rakkam nga. yow fu mu toll nii yaa dëkkoon ak moom yow sa papa ak sa yaay ak sa famille yëpp dangeen war a def test bi loolu mooy li gën a wóor. non Modou ne serait-ce que ne serait-ce que sax nga sauver yeneen dund nga sauver yeneen bakkan tey dafa jot Modou nga war a def test bii. xam nga lu tax. man man lan laay sauvé lan laay sauvé nit. waaw xam nga lu tax ma wax la loolu. waaw tey seex lii ko tëral nii tey yow yaa ko yóbbee. te tey maari day misi. non man nekkul man maay feebaraataloo de non non non nekkul man maay feebaraataloo. Cheikh yàgg na feebar yàgg na tëdd feebar kër ga. waaw mais ñaata yoon la la sa papa wax ñu yóbbu ko hôpital nga nga opposé wu ne du dem. non feebar yi ngay xamante ne dañ koy yóbbu hôpital ak Cheikh feebar bi garaawul noonu dañ koy yóbbu ay hôpital yow nekkul docteur ba mën a certifié non yow bu fekkee sa wàllu sa aar kenn ku ci bokkul mënul ñëw jàngal la nest pa pas parce que mu bu ci waxee day wax lu ko neex rek waaye xamu ci dara kon donc mbirum docteur yow xamuloo ci dara man ak yow ñoo ci yem li gën a wóor ba gën a wóor mooy nee nañ la defal test bi defal test bi ne serait sax nga bàyyi xel ngir seex mi tëdd nga xam ni que ne yow yaa ko xañ test bi yow yaa ko xañ vaccin bi. mais man xoolal Cheikh Moussa hmm. man instant ni sama frère li mu tëdd feebar man lan laay def ba mu jóg man loolu mooy sama problème quoi mais ay nekk fii naan bëgg nga bëgg mu jóg waaw bëgg nga mu jóg bëgg naa mu jóg kay bëgg mu jóg moo tax ma ñëw hôpital di ko xool si nii defal test boo defee test bi léegi mu jóg mais man léegi man bu ma defee test bi ñu ne ma damaa covid nag te man seen feebar bu ñàkk fayda boobu noonu ngeen bëgg fee nekk bëgg ko këlëb motif teg ma ko nii xam nga lu ci mënti mooy lu ci mënti am ñoom dinañ la test bi bu ma defee test bi ñu ne dañ ma dama covid ñoom ñëpp laay porte plainte <laughs> Dodo ay Modou. non non non non dama lay wax rek. jërëjëf Modou waaye dinaa def test bi nag ndax sama frère dama bëgg mu jóg. ah waa Cheikh Cheikh Massé yow loo indaale tey. ah <laughs> ah sama waa yàgg. topp non Modou euh, ngi ci vingt sixième épisode. Modou di bañ di xaacu. waaw non nga ma wax fan nga jaar ak du waaye. ah kon xam nga Modou moom dama ko yàgg topp te xam naa ni. ku bëgg frère am la wax dëgg yàlla ku bëgg ay mbokkam la. bu sañoon dara lu ñaaw du dal mbokkam moo tax nag ma ne ko. kon tey li li dal mag ji yow yaa ko yóbbee te tey bu demee ba ñaan ñaan ñu ko yàlla leneen am si tamit moom du du tranquille kon daal da nga mel ni da nga ko duut baaraam directement ñu ngi noonu ah en yëngal nga gaal gi de <laughs> jaajëf <laughs> lan moo war a nekk taxawaayu yow mi nga xamante ne citoyen nga gis li information bu warul jëm ci wër gi yaram mën a indi ci conséquence jëm ci askan wi lan moo ci sa taxawaay man de code chaque fois benn wax laa ci am mooy que ni mbirum Covid moom wala lépp lu jëm si mbirum kër docteur man du ma déglu keneen ki nga xam ne nekkul ci loolu wala boog jegewul ñooñu di ci wax di ma ba di ma convaincre man dama jàpp ni que ni mbirum Covid bi surtout euh, sa invité bi wax na ko léegi bëri na ay fausse information bëri na ay rumeur partout nag dans le monde mais pour man chaque fois nañuy jox nopp ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy yëngu su ko defee rek duñu réeroo en mu nekk lu am solo Cheikh Massé ñu lay jaajëfal bu baax a baax. ñoo xam ne daal en tout cas émission diisoo ngir aaru amal na la njukkal ci sa participation saa su nekk ak bët bu bees bi nga xam ne di nga ko indi gannaaw boo jokkee ak ñi nga xamante ne mooy ñi nga mën a conscientiser. ñu koy jaajëfal bu baax a baax xanaa rek ñu daal di fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission diisoo ngir aaru épisode 26 mu nekk comme ni Cheikh Massé def ko Baba def ko Aïssatou def ko 424 94 73 su ko defee rek ndaw Africa Tchèque yi mën leen a woo ngeen daal di joxe seen xalaat donc jëm ci épisode bi professeur Hadiba mooy suñu ganu tey mu nekk philosophe nekk enseignant ca faculté de sciences et technologies de l'éducation et de la formation FASTEF ñu daan ko ooyee bu njëkk école normale supérieure mooy suñu ganu tey di fas yéene waxtaan ak ñun ci donc thème mu tey bi nga xamante ne épisode 26 ci fi nga xamante foofu la euh, Cheikh tollu di fàttali rek ne question de la semaine bi mooy ana naka lañu ñu mën a euh, taxawee gannaaw kenn ki ci suñu ay jege ñaale ñu testé ko positif ci Covid 19 ana naka la ñu war a def ni may xamal ne am na euh, kenn ci auditeur ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu sëriñ bi naka nga tudd ak fan ngay woote maa ngi lay fay maa ngi tudd Abdou Guèye di wootee Pikine. Abdou Guèye Pikine maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi ndax yaa ngi déglu euh, di soo ngir aaru. waaw maa ngi koy déglu kay. ana lan lañ ci mën a jàpp tey ci épisode vingt six bi déglu nga ko lan nga ci jàpp. ah li ma jàpp mooy xaw na am ay différence surtout ci côté Modou ak ki nga xamante ne nii moom mooy ndooy mu mel ni kon buñ la joué foofu dina la neex. waaw man bu ngeen ma mënoon a ñëwal ci seen 2 bi ci Ndoye dina baax tuuti. su ko defee nag da naan stop. su ko defee rek ñu daal di noppi parce que tant que waxoo stop rek dañuy continuer di jouer su ko defee rek ñu daal di nga mun a jokkoo ak ñoom mën naa nekk. waaw mën naa nekk. kon ñu dem. waaw ah, Abadja yow ba ba jax jaxlaf nga de foo jógee di. waaw Ndoye man hôpital la ma jógee. hôpital lu xew hôpital. Cheikh boo feebar nekk hôpital. hee. la ba Cheikh boobu lu koy metti moom daal biig si guddi nelawul yaram yi ànd naan pat pat pat pat ba sax. dama mujj a warante euh, Moodu yóbbu ko hôpital ba ko yóbbu hôpital. ah waaw ah, waaye jaajëf da ngaa gaawtu rek da gaawtu xanaa amoo doon loolu boo ko xoolee xam ne sibiru la damaa boo ko jëloon xam nga soob ko ci géej gii di yàlla xam na di bu jóg waaw waaw bari waaw waaw xaba xaba Baye si seex li ko dal di di jar wa muy gaatu di yóbbu ko hôpital di déet waaye Ndoye ah waaw waaw ak ah, Ndoye yow feebar xamoo lu ko jot ngeen a yóbbu hôpital loolu doy na waar de eh, déedéet Abdou xaba xaba daf doon la wax te waaw léew taxaba boo gisee nit ki di di di léw di di lox nii rek boo ko xoolee xam ne kii sibru la taxaba bu dee sibru moo la jàpp nii nii yàlla xam ne boo sooboo ci ndoxum géej gi si suba gi boo xëyee rek nga soobu si si yàlla xam ne da ngay jóg dox say soxla ndoy ku la wax ku ku soobu si ku sibru bu sooboo ci géej day wér ah ba ba ne damaa seetlu bari ya nga xamante ni sibru daf ma jàpp nii bu ma xëyee nii soob ci ndoxum géej gi yàlla xam ne hmm. bu ma xëyee soob ci ndoxum géej rek day dej ndoy d'accord nga ne jantu bu mënta wayal wawal fo soo fóotu tay ah waaw waaw loolu moom dëgg la de. xam nga ne mënut a wowal Fouta tey. waaw waaw jant démb la woon. waaw kon nag li la wax dëgg yàlla jantu démb boobu bu bu wowalee Fouta rek dafa dafa dafa fekk. kii waaw kay kon nag lu daan faj démb mën naa ñàkk faj tey parce que feebar yi bokkut. wax dëgg te il faut que itam ngeen bàyyi xel ci ci biiru dafa mel ni kàkkatar ci biir yeneen feebar yëpp. wax ko dëgg. parce que moom mën na jël melokaanu bépp fi bépp feebar. wax nga dëgg. ndax sibiru mës na fi ñëw mel ni pays ñuy piqué nit ñi pays ñuy génn àddina. donc bu beneen feebar ñee même bu nduloog sibiru demal hôpital ba docteur xool la ba wax la d'abord lan moo la jot nga mën a wax ni man kat feebar nangam laa amee. walaay walaay walaay walaay wax nga dëgg de yàlla am na wax nga dëgg wax dëgg yàlla xam nga xam nga sibiru tamit xam nga moom day ñëw ak ay melokaanam yu bari wax ka dëgg. dëgg la damay fàttaliku xam bi nga xamante ni sibiru daf dangay dem rek yenn saa yi ñu pijit la rek nga at problème wax nga dëgg de. waaw kay loolu nag moo tax bu nit ñëwee yaram bi di tàng rek yóbbul bul xaar sax am lu koy métti dégg yaram bi commencé naa soppeeku rek yóbbul hôpital. docteur xool boo gën a wóor wax nga dëgg wax nga dëgg kay boo gën a wax nga dëgg de. Abdou Abdou walaay walaay wax nga dëgg li nga wax ni kay dëgg wér la Baye Ndiaye demal nga daw kaaw optal kay dawal kaaw. jërëjëf Abdou ci sa intervention mu mel ni yaa ngi doon jokkoo ak Ndoye ana lan nga jëlee mhm. ci échange bi nga xam ne am nga ko ak moom directement. waa li ma ci jëlee mooy gis naa ne Ndoye dafa réeré woon dafa am lu mu réeré woon te itam dañoo tàmm ñun Sénégal di def loo xamante ne nii maam yi daan nañ ko def rek ñu foog ne ñun war nañ ko def wala tam dañu tàmm di jël benn garab di ko fajee lu mel war a mat junni personne parce que code tey mën na amee métti bopp naan garab bi mu faj ko mu wér man su ma feebaree mu ne ma man lii laa naanoon naan ko di nga wér te fekk mën na am différence mën nañu bañ a bokk lu ñu jot te itam am na loo xam ne faamu souligné ko docteur do ñëwoon na ci sànq mooy li nga xamante ne nii moom mooy sénégalais dañu ragala dem hôpital parce que dañu ragal a xam ñoom fan lañ féete. voilà parce que depuis yàgg nañu daal depuis jamonoy sida jamono yi li nga xamante ne mooy ay yeneen feebar yu mel ni tuberculose ak yëpp dangay mm-hmm. gis bu xewee rek mm-hmm. ku si nekk buñ la waxee ne la est-ce du nàngam dangay ngay bañ parce que buggoo dem hôpital ñu ne la lii nga amee en tout cas ñu lay jaajëfal bu baax daal su ma gëstu daal am na lu bari loo xam ne jàngatee nga ko ci li nga xam ne mm-hmm. moom waxtaan bi nga seq ak ak jërëjëf ñu la jaajëfal bu baax a baax yow itam di euh, rafetlu sa participation xanaa rek ñu delluwaat ci suñu invité euh, du jour nekk euh, professeur Mouhamadou El Khady Ba allo professeur allo Fatou bien merci mu mel ni bu ñu dellu si ci épisode vingt six bi gis nañ ne kaw Cheikh dafa jaaxal kër gi yëpp ndax symptômes yi mu présenté waaye itam liñ ko testé positif jaaxle ba jaaxal ki nga xam ne moo di moo du nga xam ne euh, ci processus bi yëpp dafa réticent woon waaye tey mu mel ni mu ngi wàcc yow ban jàngat nga ci def professeur. boo toogee di naan euh, ñu lay jox ay mesures naan la defal li defal li defoo ko ba sonn di nga ko nangu mën nga ni affaire bi amul wante boo demee ba sonn ba nga xam ne amatoo foo jëm di mujjee dem hôpital tout à fait kon lu gën mooy ñu essayé teel a dem hôpital teel a déglu médecin rek personnage Modou bi aussi dañ koy gis rek nit ñi dañuy toog di naan noo amul du ma parce que ñoom am nañ yu bëri ñu daf leen gën a ñu naan dañuy jox ay nit Covid fekk amuñ ko. tout à fait. professeur tey boo amoon occasion occasion bi sax présenté na tey jii ngir wax ak kenn ci comédien yi wax ak moom directement lancer ko un message daal di jokkoo ak moom directement kan lay doon ci comédien yi peut-être lay doon kon Modou ngi nii ma bàyyi la rek nga daal di seq ak moom waxtaan Modou acca waaw waaw Modou yow da nga ni Covid bi waaw waaw Covid amul de fi bu dul rek waaw Modou sa xam-xam non sama xam-xam man damay damay damay gëstu de damay déglu ay information ci Facebook bi WhatsApp TikTok waaw man damay damay dugg ci kii bi bu baax a baax ci YouTube bu baax a baax. mais est-ce que xam nga ni ñu nekk lycée ëpp ñu la xam-xam. ñu nekk foofu ëpp ñu ma xam-xam. mën nañ yeewu suba rek mën nga yeewu suba rek. waaw. créer sa chaîne YouTube di wax lu la neex. kon yow sa bopp. waaw. mën nga créer sa chaîne YouTube di wax lu la neex. donc YouTube ak ak eh, yeneen site internet Facebook ak yooyu waaw du foofu moo am xam-xam xam-xam mu ngi ci université yi mu ngi ci docteur yi parce que dañu jàng ba sonn mooy ñooy dañu def bac ba pare dem jàngaat ay fukki fukki at ay ñaar fukki at yenn saay est-ce que mën nga wax ni yow mën nga taxaw nga xam li xamul xam nga loolu mooy problème bi yenn saa yi da ngay gis nga foog ñu comprendre wante keneen moo la koy gën a comprendre parce que moom li muy gis yow gisoo ko parce xam-xam bi mu am amoo ko donc loolu pour man il faut ñu def attention réseaux sociaux tout à fait en tout cas jërëjëf euh, professeur euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci sa intervention ci sa disponibilité ñu lay remercier donc ci ni nga tenire pendant tout sa temps ragaloon naa nag nga daal di daw en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, ci disponibilité bi nga am ba apporter sa expertise jëm ci euh, thème tey bi jërëjëf maa lay remercier bu baax. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon euh, professeur Mouhamadou El Hady Ba ñu gën ko xam ci Hady Ba mu nekk philosophe enseignant fële ca faculté des sciences et technologies de l' et de la formation ñu naan ko euh, FASTEF. kon mu mel ni donc euh, lii mooy jeexal suñu émission diisoo ngir aaru épisode vingt six xanaa rek ñuy leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ne rek. nekk auditeur nga daal di euh, woote ku ci mel ni Baba si naka noonu Aïssatou Diop naka noonu Massey Ndiaye naka noonu Abdoul Gueye nga xamante ne rek ñoom ñoo euh, joxe donc seen euh, intervention ci émission bi. di jaajëfal bu baax a baax donc ñi nga xamante ne ñoo ñu permettre ba ñu mën a suivre lii ci anam yi euh, gën a euh, taxaw euh, mu mel ni donc di jëlaas bu nekkoon ci partie technique bi sow waaye itam ma permettre leen rek comédiens yi ku ci nekk daal di présenté war comme ni ñu koy defee rek saa su nekk. waaw ah, man la Mamadou Diol maa nekkoon Cheikh. man la Yacine Diop maa nekkoon docteur Diop. ah man la Khady Fall Diaw maa nekkoon mère Fanta. Euh, salaamaaleykum man euh, maa nekk Cheikh Ndiaye nekkoon Modou ak euh, Ndoye ci pièce bi. salaamaaleykum man la Mame Mbodj Gueye maa nekkoon Baye Ndiaye. salaamaaleykum man la Seynabou Diop maa nekkoon Bigué ak Soxna. ñu koy jaajëfal bu baax itam moom itam di jaajëfal euh, Kumba Sila mi nekk coordonnatrice bi naka noonu Fallou Sow di réalisateur bi di jaajëfal itam man mii sama bopp ko du nekkoon ci micro bi ñu leen di jox dig daje euh, ci beneen bés lépp ci jàppandalu DJ Las mi assurer la mise en onde radiophonique